Toutes les femmes sont des reines, certaines plus reines que les reines. Elles disent des choses qui surprennent, elles brisent les hommes qu'elles enchaînent. Cette chanson. madame Hadid mm, présente du réseau Andi pour n'est aussi actrice de développement et opératrice économique. nek responsable aussi politique euh, en tant que bo bugué xey euh en fait def ce ce liguey comme nim ko waré nga bëgg ko bolé ak politique dina am toujours lo xamné ne ko supporter parce que timit lolé la laaj mais metna na trop c'est difficile. jigen ñi ñi yor nak bo gisé liguey bi yëpp oyof ñëp dañ ci japp parce que dañu am association qui xam dafa réseau Légui. Nous avons jigéen ñu bëri le réseau àndi liggéey ñu am ay section Parcelles Assainies yi Cambérène Ngor ñaari tali euh, jàmm gën mbaaw mu vraiment une famille boo xam ne ñëpp si donc ñu organiser wu ba am suñuy récépissé avons ñu amee suñu récépissé en 2013 euh, mu formel ñu commencé di daje di boole li ñu am maanaam ay cotisation chaque dimanche saa ñu cotisé bu ñu paree jox ko trois personnes maanaam trois femmes ñu mën si dem dimbali si seen bopp. beneen bi mooy aussi bu loolu weesoo comme actrice de développement bi ñu def ñu créé fi ay financement mois de décembre bi rek dem nañ à hauteur de dix millions euh, jël financement yooyu jébbal ko waat jigéen ñi pour ñu mën a dem liggéey si. loolu defe naa ne euh, liggéey bu bu bu yàgg rek moo moo ko mën a maye ndax ñoom ku si nekk rek dafa am si looy yëngatu ñu ngi si transformation fruits et légumes bi ñu ngi si denrée alimentaire ñii ñu ngi si ñu ngi si cuisine bi ñeneen ñi ñu ngi si aussi euh, euh, boutique yi maanaam action diverse daal la def mais lépp si yëngu yëngu-yëngu jigéen mais. actuellement ni ñu ngi def formation yoo xam lu melni comme savon ah aussi defaale aussi euh, euh, comment dirais céréales locales euh, ñoom moom la ñuy jël bu ñu paree moom la ñuy moom la ñu jël revendre ko mu mëna a ay source de revenus ci ñom non dal lañuy ñuy ci suñu biir. non jafe na jafewul parce que xam nga liggéey boo gis rek boo ko mu jafe mais boko bëggé bëggee na mu waroon a jafe du na jafe tànk expliquer la la ne la l'union fait la force ay jigen bu ñu àndee sen seen doole di yëkkatandoo di tegandoo dina jur résultat parce que tay li def mu nekk réseau bi ñuy doog a association la won mu nekk manam ben groupe bo xamné 50 personnes la ñu Les groupes groupe boobu nga xam réseau bi mu nekk réseau bi dem na ba nekk na presque mille cinq personnes wala de plus parce que dix sept yo xamné xam ku si nekk rek. yaa ngi boot plus de cent cinquante personnes te clubas principal bi mu ngi yor deux cent personnes kon xam nga loolu takku na kon loolu euh, gis liggéey bi nga xamante ne ñu ngi koy def te mu mu productif maanaam ñu gis njariñ li euh, tax na jafewul te noonu daal moom la ñuy liggéeyee mu nekk nii. yàlla def na xew nag fi lañ ko fekk Sénégal suñu culture la mais ñun yàlla dafa def cotisation yi ñuy def yëpp ku si gañe rek. comme ni ma la ko waxee ñi ñu ngi yor ay boutique ñi yor ay restaurant ñi nekk si transformation ñoom dañuy def seen renforcement ah ci seen moyen yi nga xam ne ne moom mooy seen fond de roulement pour mu gën a jëm si kanam mais jëluñu ko di ko def si ay xew wala jël ko di ko maye wala nga di ko def leneen parce que dañu see sonn pour ñu jot ko loolu nag ñun noonu dañuy liggéey ñun waa réseau ànd liggéey. waaw mbébét bi mooy ñu gën a jàppale jigéen ñi ndax jigéen ak xale dañu sonn société bi. ndax lu jóg ñu ne jigéen ku sonn ne jigéen sa sax bu fa dara méttee wala dara jaaxal borom kër ga sax jigéen ñi lañu ñu oo te jigéen ñi cër yi ñu leen war a jox jox ñu leen ko muy si société bi muy tey jii fi nga xamante ne mooy environnement bi ñu dëkk ndax jigéen de xëy suba yor këram di liggéey boolewul sa euh, sart yi nga xam ne moom la war a def këram foog mu accomplir ko bëggul doomam tilim bëggul boolem doomam xiif bëggul borom këram xiif donc boole ko nag ak liggéeyam kon kooku euh, nee naa leen lingeer la bés mu nekk rek bésam la war a doon te yemul foofu parce que boo ko xoolee jigéen moom lañ gën a néewal si boo xoolee bërëb yi ñuy liggéeyee boo xoolee góor ñi fa xasuma leen nag suñuy càmmañ lañ waaye pouvoir bañ leen di jox ak valeur bañ leen di jox jigéen ñi amatuñ ko parce que demoon nañ ba ne euh, émancipation de la femme égalité mais loolu amul. parce que boko xolé buñ ko waxé ci ay ay kay timit duñ ko jëfé té lool nak dañ ko wara xolaat bu baax parce que jigen dafa sonu dé té jigen dafa am njariñ ci réew té lu jigen jité sa kanam la jëm du dellu ginaaw ñoñu dama leen di féliciter d'abord en tant que femme ndax femme au foyer bëgg nañ ko waaye femme au travail aussi c'est mieux parce que bo nekké sa kër nga wara am lo xamné ne ko bëgg fajj sa loxo jotul sa ginnaaw te xam nga ne góor ñi am nañ yéene mais du ñëpp li seen loxo jot seen ginnaaw parce que dinañ bëgg def sax mais duñ ko man yow li la war a li nga war a xalaat mooy nga jéem a mm, takku liggéey loo xam ne ne sa njaboot gi bu ëllëgee dinañ si dinañ si mën a gis seen bopp waaye leneen li aussi gouvernement bi war na jàppale jigéen ñi parce que jigéen ñi toog su biir kër yi te liggéey ñu bari nañ dëgg la gouvernement mën jox ñëpp liggéey waaye am nañ ay ay action yoo xam ne comme lu mel ni ay action sociale am yeneen action yoo xamante ne ay accompagnement la ñu ngi doon wax jigéen ñi ay financement mais jigéen ñi financement yi ko wala bu ñu leen financé lañ leen di laaj dina bari bari goo nga xamante ne duñ si mën a dund wala duñ si mën a fay parce que tout le temps bu ñu si jógee ay problème la ñuy am donc loolu aussi war nañ ko alléger ñu xool na lañ mën a accompagner jigéen ñi pour que ñoom tamit boo ëllëgee li ñuy def ñu mu mën a gën a jëm sa kanam waaw sama dernier moom mooy maa ngi ñaan senegal li yàlla def fi jàmm di ñaan mbas mi yàlla jëli ko fi di ñaan ñi jiitu yàlla xaar leen àjjana te ñi nga xamante ne mu ngi leen tëral aussi yàlla may leen wér ba ñu dellu si si seen biir di wax nag chapeau aux femmes parce que nag boo waxul nag ah, xam ne ne am nga loo war a jigéen ñi mais dal vraiment loolu dal moy sama mot de bienvenue di di di di ñaan aussi suñu tam ñi nga xamné ne ñuy jappalé ñu ñu gën toutes les femmes sont des reines certaines plus reines que les reines elles disent des choses qui surprennent elles brisent les hommes qu'elles enchaînent cette chanson.